TV tey seen histoire dina retenir lundi 8 mai 2017 ci la modernisation euh, transport urbain bu Diourbel am ci lañu mës am ay car comme na ko dëkk yëpp daan amee ñun amuñu ko mu mettoon ñu tey trop kon loolu di sant son excellence le président Macky Sall bi nga xam ne moo ñu defal sagal ñu nu ñu kaar ñi ba Njaaréem war a mën a bokk wax dëgg neex yàlla ci deux villes nga xam ni ñoom ñëpp dañu am kaar wax dëgg neex yàlla loolu ñu sant la di ko gërëm moo tax waa Njaaréem yëpp tey génn sem xol sedd guy di ko santaat yàlla bu baax santaat yàlla bu baax di santaat gannaaw kaar yi bi mu weesoo ñu gis na tamit hôtel bi ñoo ngi commencé liggéey oasis bi ñoo ngi commencé liggéey kon muy maanaam njaareem beneen xar-xaru kanam la war a yor waaw parce que loolu lépp ci ay engagement yu jëloon la avec son excellence le bi déjà bu mu jàllee li lépp waxoon nañ ko ñu bari nag doon xalaat leneen waaye nag yàlla def na la moom mënoon na def leneen mais tey la mu ñu waxoon lépp ñëpp gis nañu démarré na ko kon loolee ñu ko ciy sant bu baax ndax bu ko defutoon it duñ ci mën dara waaye nag la mu ñu waxoon def na ko ñëpp teg nañ seen bët di ñaan yàlla yàlla na lépp egg yàlla na sànc yëpp mat te muy jëriñu waa njaarim léegi jot na c'est le Diourbel en marche njaarim kenn dootu ko fàtteti ci dara njaarim dina dox lépp lu ñuy def ci yeneen réew war nañ ko am mérité nañu wax dëgg neex yaa Diourbel bokk ci